ce mardi 7 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront d'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 237 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 105 guéris et évacués. Par conséquent, nous avons dans nos hôpitaux 129 patients sous traitement. En outre, le Comité national de gestion des épidémies, au sortir de sa séance tenue hier, 6 avril 2020, a émis les recommandations suivantes. Premièrement, les comités régionaux de gestion des épidémies, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, devront systématiquement mettre en œuvre leur propre stratégie pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19. Deuxièmement, au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant de pays infectés ne devra être permis. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective. Durom ñaari fan ci avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat test Si ci téeméeri test ak fukk yi ñu def tay. fukk ak Ben, ñoo ci positif bon donc nous ñoo am jàngoro yi juróom ay cas contact la ñu doon suivre nyari. ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fuñ ko jëlee ñu leen di yëgal ne fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi leen doon hospitalisé mën nañu wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère de la santé et l'action sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñi ngi yëg tànn ba mu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar i cas moom la Sénégal déclaré boobu ak léegi si ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak juróom wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn ki évacué nañ ko bon dëkk fi ñuy wax ak yéen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ñu yëgal leen tam ne. le comité national de gestion des épidémies moy kuréel gi xamantene mom mo yor Covid 19 bi dajé nañ démb ñu teunk communautaire yi mi ngi bëgg région gouverneur bi moy diriger comité régional bi xamantene mom mo ñu ngi leen di ñaan ku nekk nga am taxawaay pour kaa communautaire yooyu ñu mën ko daggal nu mu gën a gaawe beneen bi comité boobu jàpp mooy ci wàllu transfertu dépôt yi mooy ñi xamante ne dañoo faatu bitim réew ñu war leen mën a indi denc leen ci seen réew ñu ne jàngoro ji fi mu toll léegi ak wàll bi ni mu gaawee te koor yooyu bu ñu ñëwee

Mingi demander demandé population yi ñu déglu bu baax te dégg ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a daan Covid 19 bi génne ko suñu réew génne ko effectivement ci Afrique génne ko ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di remercier bu baax.